hamani hala mahin mal absa wa safar Cheikh Mouhamadul Mountakha noo ngi fas yéene yëkkati nuyoo bi gën a teg waaye daa ko liggéeyal seen ki nga xam jammaw ca dañ fas yéene jébbal la tey balaa may sore sa bokk dañu war a tàmbalee yëgi-yëgu murit daf ñoo dab ba dañ koo fàtte ndax xale yi am na ci dongay isbu yi ñu taxaw rek baax waaw ñii ñëpp ci daara ji lañ juddoo kon fa la ñuy jàngee kon dañ ci tànn rek ñu am diggante bu gàtt boo xam ne ñoom dañ ci am lu ñu fàttali ndax Mbàkke ba nga dalee wax ak dongo yi yàgg na ba nga dalee soññee yàgg na kon nag digg ko jot na jëfe ko ba mu mokk jot na kon loolu damay damay jox sëñ Lamin bismillah ngeen def loolu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 أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم li liy jiital ci sunuy kàddu ñun dooñ moo di fàttali kàddu yi Cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbàkke yu tedd yi mu jëme woon ci noonu ki tabaski gi weesu wax na ne dëgg la gone ñooy yaakaar ëllëg kon lu gi doon doon gone it war nañoo bàyyi xel ci xam ne ñooy yaakaar ëllëg yi te xam ne lu baax rek lañ bëgg ci ñoom ñu xam ne am nañu xéewal gu rëy juddoo fii sëriñ bi kon war nañoo teel a def seen xel ci hormaal ko hormaal barab bii di wattandiku di fi jëf benn safaan loolu mooy gone gi muy ndaw li rawatina ndaw li ñi xam ne ñooy ndaw yi loolu moo war nekk ci ñoom warmaal sëriñ bi warmaal dëkk bi ndaw ñi rawatina ñoom ñooy yaakaar yi war nañoo xam le seen warteef xam ne bu ñu dee wax saamu warmaay dëkk bi saamu warmaay sëriñ bi saamu warmaay dëkk bi dafa mel na ko ñoo ci jiitu muy ndaw ñi ñoom bu ñu xamoon dañuy jàpp ne dañuy xam ne ñoo war doon ñiy wattu dëkk bi ñu koy wattu sëriñ bi gannaaw bu ñu góorgóorloo ci seen bopp ba nopp ci bëgg sëriñ bi bëgg ga ñu ko war a bëgg ak pastéef ba ñu war a am ci sëñ bi ak war ma jëleen ca war ndaw ñi ñoom dañoo waroon jàpp ne ñooy ñi nga xam ne ñooy wattu dëkk bi ñi koy wattu sëriñ bi gannaaw bu ñu góorgóorloo ci seen bopp ba noppi góorgóorlu teg ci yoonu njub lii nag dañuy ñaan suñu borom def ko ci ñun ci barkeb baytu matlabul fawzayni yii nuy jàng wasafiyanni xaalaban wa

مرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالتفا وبسلكا مسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاصي وبسلك ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا اعتمادي وحب آلي وصحبي جميع ثم مسلم مطيع يا ربنا يا زنطا يا أجب توصلي بالمصطفى ثم عليه صليا خير صلوات يقودني إلى ملاقاة الهدى ثم عليه صليا خير صلاة يقودني إلى ملاقاة الهدى bayit yi sëriñ Tuubaa mi ngi ci ñaan sunu borom mu defal ko jàmm ak xol bu sell ak ku yéeg akuk cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu boroom di kilifaam buy dund ak bu làqoo ko yiir ko al xamal ko teral ko dimbali ko ñeewant ko defal ko luy tax a mucc ba du moy may ko texe gu dootu ànd ak texee di fexe ba xolam dara dootu ci ne lu dul bëgg yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa bëgg saxaaba ya ak ku dib julli nangul ko yii te wasul ci gën ci mbindeef mi ñuy tànn te julli te sëlmal ci moom mi ñuy wommat jëmiñu ci ak Seyxana Ahmadul Xadim jërëjëf Seyxana Ahmadul Xadim jërëjëf Seyxana Ahmadul Xadim